bi ñu am. waaw. parce que parce que Aliou du Dia keroog bi ñu demee TFM. Hmm. maa koy nuyu di nuyu honorable député yi. Hmm. Euh, pur yi ñoom euh, Soxna Baag yooyu ñoom Masata ak euh, Ahmed Niang. sama hmm. ñaari xarit yooyu ñu fi tëjoon kaso. gis nga Aliou Mamadou Dia waa ji daf ko wax ne ko ndax seen parti bi du daayira wala parti diine. est-ce que loolu du nekk handicap. mu ne Serigne Moustapha Al Maktoum mhm. daf leen wax ñu def ouverture te waawoon li fa xew jarul na bënte ñëpp xam nañ ko. Mhm. entre Moustarchidine ak. Mhm. beneen côté bi nekk ñu ay ay ay ay ay kii ay ay ay mag mag mag waaye ay taskatu xabaar lañ. dégg nga ñi nga xam nañu bokk ñoo ñun diine. ñoo muy diine waxuma tarixa de diine ñooñu it lan mooy nekk seen taxawaay ci waa PUR. Mhm. ak bët bu ñu leen di xoolee. ñi nga xam ne tam bokkuñoo waa PUR tarixa Sénégal ñëpp du ñu ay mhm. dëgg loolu dëgg. waaw ñi bokk ak ñoom tarixa ba pare te nekkuñu tamit ay musasidin mhm. lan mooy nekk seen taxawaay. ak waa PUR Aliou Mamadou Diam. foofu foofu la ko la fay doon laaj. mu développé ci esprit d'ouverture bi nga xam ne sëñ Moustapha jàngal na leen ko. te ñu nekk ca moo tax ngay gis yenn saa yi ñoo xam ne bokkuñu PUR ba pare votel PUR. parce que ñu bëree bëri dañoo jàpp ne waa PUR. murit yi du ñu leen voté. beneen tijaan yi ne du ñu leen voté. waa Medina Baye du ñu leen voté chrétien yi du ñu leen voté. waaw murit yi du ñu leen voté. ñoom ñoom Moussa Siri ni dong ñoom ñooy voté. am na ñoo xam ne bokkuñu PUR. votel PUR votel PUR parce que dinañ ne ñii seen organisation. Mhm. seen discipline seen yar ils ont une éducation catholique. Mhm. expression la bu gars di. Mhm. utiliser seen yar geeg yëpp ak organisation bi mën ñi doy nañ ko. le projet tu le lis. tu tu dis que ni. ñii nii ñu organiser nii nii nii organisation parfaite bi mhm. noo ñii bu ñu leen dénkee réew mi bu dee nii lañ koy organiser changé wul sa waay man xooluma ni gars yi man nekkuma mustasidin wala nekkuma julit wala chrétien wala mais man je vote Aliou Mamadou Dia mhm. léegi nag foofu nag la doon expliquer tout à moo tax aussi war na def ay communication. waaw surtout loolu. waaw mhm. ah, très bien sensibiliser. sensibiliser nit ñi. parce que seeni détracteurs. lu ñuy wax mooy da daayira la parti religieux la. Mhm. te parti religieux parti religieux amul. amul déedéet. fii amul benn parti parti religieux. Mhm. nous sommes dans un pays laïque. Mhm. dégg loolu appliqué wuñ fi charia. mais seen organisation wu liggéey moo tax li nga doon gis à part Benno euh, euh, euh, Diomaye président. mobilisation. mën nañ ko. de yow bi jarul sax muy ñëw. man même capitaine jarul muy ñëw. non ñoom boo leen wooyee ñëw na man man benn benn peut benn benn benn benn reproche. Euh, lay def euh, à leur endroit mooy que candidat bi nga xam ni pare nañ pour présenter ko na présent dans la scène politique lu yàgg. parce que politique aussi loolu def ci jouer nga génn gars ne kii kan la. parce que gars dañuy juger li monsieur le maire doon wax sànq gis nga am na ñoo xam ne dañoo am riir boole kook programme boole kook nangam ak nangam ak nangam et ils ont un programme riche. man keroog bi ma seetaanee Aliou Mamadou Dia j'ai contacté un ami ma ni ko mais kii c'est une tête il est assis intellectuellement mais après da ngay dem ñenn ñi ne la mais pourquoi il a servi à l'extérieur pendant vingt ans bàyyi Sénégal tey mu ñëw di laaj Sénégal. bon ce n'est pas un argument fondé pour man mais li ma jàpp mooy bu dee am nañ benn électorat bi ñu am benn conviction bu leen déterminer ba pare mu nekk un parti d'ouverture ñoom wax nañ ko léegi moom mooy wax na ko damaa jàpp ni ki nga xam ni moom la ñuy porter candidature war na présent lu yàgg ci seen politique. pour gars yi xam ko surtout moment yi. parce que mm-hmm. gars yi loolu la ñu soxla. fii boo fi gisee yenn politiciens yi ngay gisaat yëpp ñu am yenn kii dañoo mujjee am riir ba ci mm-hmm. Anta. dëgg la de. ba ci Anta da ngay gis yoo xam sax danaan non man Anta engagement bi moo ma neex. jëlal exemple Ousmane Sonko rek waa Pastef lu ñu am taxaw taxawaay bu yàgg. waaw am na ay taxaw mais taxaw ay ati at ñu taxaw wañu may ñu dara nguur gi. donc may ñu dara nguur gi ba pare am lu ñu indi lu bees mm. aussi. am lu ñu indi lu bees. constance ak constance. constance waaw waaw surtout loolu. waaye sugu mm-hmm. Mm-hmm. sugu politique constance. Mm-hmm. la sëñ Abdoulaye waxoon. kàdduy démb géeg jëfik tey gi na méngoo na méngoo rek mhm. mu ne ci ñun la bokk mu safaanoo <laughs> mu ne baal mu dem te murit yi xam nga ñoom moom ñoom seen waxtaan teggi na lool déggoo de mhm. moom daal kàdduy démbam daal bu méngoo ak daal ci ñun la bokk mhm. waaye koo xam ne ay kàdduy démbam daal safaanoo lool ak jëfi teyam baal mu dem waxul bokkul ci ñun de <laughs> baal mu dem <laughs> dafa ne dafa ne baal mu dem kese constance constance grand grand sugu maa ko naan grand professeur sugu <laughs> constance am na solo trop man de Malick Gakou leen rek laa ko mën a seedeel hmm. na yi dem génnee baaram hmm, Malick li muy wax sax bariwul <laughs> mënoon nay wax lu bari ni ma chaque jour ñu génneel la te te te te doo am baax. waaw demal rek nga wuti xanaa luy gën a yàqal politicien rek mooy waa jaa ngi dil wala dilul waa jaa ngi dil wala dilul. Mm-hmm. waa ji bu bëccëgee lii lay incarné mais bu guddee ndekete moo gaa yi ñooy ne boo bëggee yàqal politicien rek tuumaal ko loolu. mën nañ ko tuumaal politicien nag te loolu nekkul dëgg. mooy le fameux Gloria. waaw seen détracteurs yi. mais yow chaque jour nekkal ci loo xamante ni nii sénégalais dinañ xam ne waa ji lii ñu koy tuumaal nii yëpp nekkul dëkk mm-hmm. au finish. Mm-hmm. ba fin ba. waaw gaa gaa yi ay tuuma rek la ñu am ay tuuma rek no moom nag dama ko wóolul dara de discours bi temps yi moom sa waay gaa yi ndox na discours bi dama gaa yi <laughs> sedd de temps yi moom saa et puis gi fi jógee sax loolu moo nekkoon seen arme ku ñu bëgg a jaxaseeg askan bi rek foofu lañ lay jaar a jaxaseeg defal la profilu Ousmane Sonko laa lay wax nii bindal la texte. <laughs> dégg nga ko de te ñee ñoom. dañuy dañoo xër. dañuy tombé ci piège bi. waaw il est beau il est gentil il donne de mënoo koo wax ñu yëg la. récemment sax yeewu nañ ci parce que kaaw dàmbooj bi ak. Euh, farba ak euh, Clédor Sène. gis nga dañu xam ne carrément lii du dëgg. non mais avant loolu am na eh. ko tuumal ñoo xam dañ ko doon. gars yi ma wax la benn affaire. Mm-hmm. et puis di nga dem ba toll benn instant boo xam ne dootoo bëgg ku la yàqal. Mm-hmm. Mm-hmm. même bu ñu leen jàppoon muy dëgg sax gaa yi dañ koy sëgg. dañ naan waa ji comme que mi ngi suñu biir. na def lu ko neex sa vie nag moom beneen affaire la mais comme que ci biir parti bi Dame Mbodj Clédor Sène li ñuy jariñ ñii di ñii di di leen tuumaal yëpp yëpp yëpp seen pexe bu sottee Ousmane dugg ci kaso bi buñ leen déglu. buñ leen déglu noonu. dëgg la wala dëgg. waaw euh, nag li mu doon wax léegi nii loolu moom mooy moom mooy dëgg. Constance Mame Diarra Constance toog rek 2014 ba mille 2024 sa waay yow nga nga nga jël sa tànk bi rek teg ko fen rek. Néro Ba menace barricade kaso accusé viol dóor saaga toj ay verre loqati la sa oto ñeŋ dóor lay grenade lu ne nga nga ba mujj gi Ousmane Ousmane dafa baax de te dafa ànd nag moom moom dundam gi yëpp nag njariñ la jariñ ak ñoo bari jariñ na ba jariñ diggante Ziguinchor ak ak Dakar Ousmane a tax ñu defar aéroport Ziguinchor macha allah. <laughs> te samp leen ko dem ngeen dikk bi mu jaawaa jongee ministère bi génnee communiqué ne aéroport Ziguinchor rek ñu liggéey. <laughs> te moo ñëw toog ci sama digg stade bi jagax leen comme ça gars yi defar um, uh, nga jël ko daf la soxla Mariama jàllale naa sa sa sa sa sa sa. kan su uh, yóbbante Mariama Sakh bu Sonko. kan man mi waaw. nee na su la wooyee nga jël. mi ngi insister rek. ana numéro. <laughs> man de ah, moom dafa mel ni xam na la de. man de sa ah xaw ma ko de waaye jox ko sama numéro man de sama numéro bi sama numéro comme comme gerte jaaf. sama bos a gën a late. non sama bos latewul man su est-ce que xam sama numéro bii ba ma taawu jamono jeune. ba tey est-ce que defu moom seconde li ma am laay xaw ma première. Mhm. ba tey jamono jeune bi ko njëkkee génnee. étudiants yi lycée yëpp dem rangé xam nga fan lañ rangé nekk bu ma gisee palais balaa maa gisaat palais yàllaa ñu ñëw rang rang huit heures xaw ma lan pour am puce parce que boobu dañ doon wanteer yi dix mille francs mhm. xaw ma ci woon dix mille francs pour nga am passe dem Dakar nekk problème boobu jox ko ko incha allah Mariama nag Sarr Mariama Sarr mhm. bu Sonko du du Mariama Sarr bu Macky rek. <laughs> déedéet bu Sonko. waaw kay Mariama Sarr bu Macky moom mooy ministre bi.